dani sama waay da jamiñal jaara busu wala ma sebi jaara jurujum tey nga xam ne yaakaar naa Euh, doomu réew mi la muy Wally Ballago Seck euh, mm. le centre di boobu di ma ko saa su am na cër boo amoon ak papaam mm-hmm. am na loolu dox ak papaam mm-hmm. danoon dem kër papaam di mm-hmm. euh, saafonte ak papaam ngeen am di macha allah yóbbu papaam tey këru dëgg mu bàyyi Wally que relation ba mu dox ak papa Thione est-ce que mooy Wally Ballago Seck tey nekk fi tey musique sénégalaise a tey boo doon wax relation ak Papa Thione tuuti avant ñëw ci Wally Seck. waaw Papa Thione Papa Thione su may wax ci moom damay ragal sax jooy yàlla xam na ko oh. Papa Thione dafa nekk nit koo xam ne. Mm. Euh, benn waay bu ñuy wax Assane Assane mu nekk Belgique. Mm. Assane day nekk ci groupe am bi. Mm-hmm. moo ma joxoon numéro fekk ma ni ko Assane ndax yàgg nañoo jokkoo mm. ndax Wally Seck. Mm-hmm. ndax man lu ma mosoon a gis ci groupe Wally Seck bi. ak lu mu mënti doon ci yi damay woo Assane ne ko ah sama waa ji de gis naa ci moom nangam ak nangam. Mm-hmm. mais dama gis ci Papa Thione lu yéeme yéeme yéeme yéeme idaari mm-hmm. ma teg di ko gis mu sonal ma lool. bi may bi ma ñëwee di expliquer Malick li nga xam ne tey gis naa ko ci Papa Thione dama doon jooy parce que Thione nit ku baax la. te gisuma ko. monument la ko. billaay wallaay bi may expliquer Assane li nga xam ne tey gis naa ko ci Papa Thione ko Assane. ah yàlla de am na lu ma woon ci Thione Seck papa ji aw ma numéro nag waaye gis naa am na feebar bu nekk ci moom te bis bu daanoo dootul jógati Assane ne ma mu ne ko waaw papa Thione bis bu tëddee yàlla xam ne ni dootul jóg mu ne ma ñuy def mu ne ko ah xanaa li jël di numéro fexe dem ci moom mu jox ma numéro papa Thione ma vocal ko ne ko papa maa ngi lay ziar mu fay ma fay bu neex. ndeysaan ku baax ne ma kookan la ma ne ko man la soxla lay xam naa ne xamoo ma. waaye dafa am lu ma la bëgg a wax ci sa bopp ak lu jëm ci Wally Seck ndax man damaa bëgg Wally te yàlla rek a tax. Mhm. bëgg la yow sopp la te yàlla rek a tax. Mhm. soxlaawu ma sa dërëm. Mhm. ni ma lay gisee ba li ma li nga xam ne tey jii gis naa ko ci Wally Seck ak yow ma mën la ko wax rek mooy sama problème soxlaawu ma leneen papa dema jox naa la rendez-vous fii ak jeudi. à 14h nga ñëw sama kër. ndeysaan di jot waaw ma dem këram mu teg ma ci studio ndeysaan mu nekk nit ku baax. Mhm. mais Papa Thione bi may ñëw mu ngi may tooñ naan ma ay yow ak sa caaya ji di ree. ma ne ko gis nga de ma ne ko baax xam nga ni way bi nga wayoon ne ko euh, addunaa ngi nii demal maa ngi ñëw ku la déggul mënu koo firi waaye li nga ci wax bari na mu ne ma ah doon la kay waaye mën naa kaa woyaat ba léegi ma ne ko est-ce ma ne ko tey nag dafa am lu muy indi sa kër dama gis lu yéeme yéeme yéeme yéeme ma boole ko ak tiitaange ndax dama laa bëgg bëgg gee ma fi indi ah papa gis naa ni dangaa tawat lool sax te yaa ngi koy sooxaale waaye boo ci jógul boo tëddee dootoo jógaat de nii laa ko waxee. Hmm? mu ne ma mu ne waaw mu ne ma yàlla baax na. waaw waaw mu ne ma yàlla baax na. ci lañ toogee nag waxtaan heure julli jot li ma gën a frappé ci papa Thione heure julli jot mu bàyyi ñu fa dem dugg ci salle bi jàpp ba sell. wallaahi dem julli ñu toog di fa xaar bi mu paree la ñëw ñu àggale jotaay li ci biir nag duma ko wax. parce que mm-hmm. defoon wax ah. naa ak moom. wax naa lu mm-hmm. bari ci moom. Mm-hmm. wax naa gis nga concert bi Wally Seck amoon gàmmi. coow li bari woon lool ci kaw bu ñu tuumaal ko. wax naa ko papam te boobu ñëwagul. révélation yu bëri te boobu papa ji di ko woo fi ñu toog mais jotu ko xam naa dafa fekk muy nelaw. Hmm. lu war a am rek. day am mais li hmm. nga digganteeg Wally Ballago Seck pour nga mottali li nga xam ne moo moom nga doon jëflante ak papaam euh, pourquoi nga ne Wally dafa dàqaree jot exemple est-ce que jox nga jël nga jóg nga def ay démarches pour euh, toog ak moom wala nga def ay démarches pour euh, gis ko wala nga wax téléphone. est-ce que yaa ngi koy defal li nga xam ne mooy ay ñaan parce que doomu réew mi la te soxla na ay ñaan baax a baax est-ce que subaa di nga toog yàgg nga gis ci moom dara mënoo nga jël sa xaalis bopp wala nga xam nga Idaañ mhm. man Papa Thione dafa tax ma gën a bëgg a Wally Seck billaahi Papa Thione dafa tax ma gën a xër ci Wally Seck mhm. parce que bëggoon naa ko bien avant mhm. mais du ma demee ba jàkkaarloog Papa Thione yar gi nekk ci Thione ak ni mu nekkee mag diine gi nekk ci moom ak Papa Thione li mu xam ci lu jëm ci wàllum yàlla ak yonent bi mhm. loolu gën na tax ma bëgg Wally Seck Wally man man même bu dul dara même bu ma toogul wax ko la may def entre man la ak yàlla waaye sama digganteeg moom lu ma gëm mhm. ndax ku dem ba jàkkaarloog papa war ngaa mën a jàkkaarloog doom am na yoo xam ne nag man su ma ko yëgee ci bëgg di ma bëgg Wally Seck du ma taxaw di ko wax ci internet bi kenn di xam damay noppi bu ma gis ndeyi mbilli mhm. ndax tey bëri na loo xam ne mu ngi xam Mbaye si Ndiaye jokkoo nañ. Mbaye si Ndiaye ndeysaan ku baax suma frère ku baax. nit ku baax xam naa taabee ko mayul. dëgg la mais jokkoo nañu te du jamono bii ma koy wax ci wax ci Wally Seck wax yi garaaw. Mhm. ne ko Wally nit ku baax la ku bëgg ay nitam la. Mhm. ku am ku la te ku am ku am colère la. dëgg la ku mën colère ku mën nitam. Ah. Mhm. ku fonk doomu aadama. bu jàppee du bàyyi. déedéet kooku mooy Mariasine. bu jàppee sama xarit boobu. du bàyyi. beneen bi mooy que ne nee naa ko Wally xeex bi dafa métti ci groupe am ñi muy àndal ñu baax lañu ñu ko bëgg lañu te ñu ko yëg lañu ñi muy àndal li ñuy wax ci Wally Seck ñoom lay gën a métti ka Wally Seck ñoom lay gën a métti ka Wally Seck mhm. ndax ba ñu dalee ànd ak moom kenn fekkeewut kon lu ci waay wax rek dangay wax loo xam ne maîtrisé woo ko day métti mais dañuy àndaat mais gis nañ barki démb euh, euh, ametu génn Mmh. wax ne euh, kontaan ci wax yi. Mmh. Euh, gis keroog aussi itam Youssou Dieng ngeen ne bàyyi na liggéey Ramadan. Mmh. bàyyi na liggéey Faramaren. Euh, yaakaar naa mu nekk loo xam ne ay révélation yi la yoo xam ne Ameth Thiou. moom Papa Thione la woon. tey moo waal yi. mu dem ba ci biir toog devant les télé. ne bàyyi na ne ne ba ne kontaanul ci ki nga xam ne mooy Wally Ballago Seck. en tant que ko gisee. waaw xam nga Ameth Thiou ndeysaan li mu wax noonu taxul mu bañ Wally Seck. ku ko bëgg la. Mhm. ndax mën naa ne ñoom ñoo yar Wally Seck. Mhm. moom ak ëmb ji. Mhm. ñoom ñoo yar Wally Seck mën nga ku baax. waaw ko ko dégg ci lenn. ñoom ñoom ñoo yar Wally Seck. du dëgg kon man dama naan képp ku ciy wax rek ci diggante Wally Seck ak Ameth xamal bu baax loo ci wax ndax ki jàpp sa baay di ànd moom ba mu dëdd la bu dee du la bàyyi. day metti rek. groupe bi nag comme li may wax rek dafa am luy nekk ci biir. mooy waral li ngay gis jafe-jafe yi ngeen di gis seen biir. Mhm. xoolal Fallou Benjamin. mu nekk mbokku ci waali ku sës ci waali kooku mënta dem bàyyi waali. Mhm. mënta dem bàyyi waali sekk. Mhm. xëy na wax jee fi nekk rek. ak li nga xam ni tey jii def nañ ko ko ndax waali sekk. yaa ngi dégg mais mënta dem bàyyi waali. mais man li ma mën a wax mooy. Sénégalais yi képp ku génn ci groupe Wally Seck di wax lépp loo ci wax nga doon sëriñ surtout sëriñ yi. parce que dañoo yàkkamti événement. du ñu gëstu. duñu seet dañuy dégg ne di wax na dara dem ñu génn wax mhm. gis nga Wally Seck ak groupe Ramdan mhm. xuloo fu ne lay am jàppante fu ne fu ne lay am mhm. ndegam jëkkër ak jabar lañu takk seen diggante mu am farata ñu tëdd ba guddi di xuloo te njaboot rek boole waxuma la ñi nga xam ne dañuy ànd te fanaan nañu dañuy waxante dëgg kon képp kuy wax ci diggante boobu man duma wax sax ci côté ci côté amet yu kese groupe Wally Seck muy yow muy Youssou Dieng muy keneen ak keneen lépp lu ci waaye di wax nag xam ko hmm? waaw lu ci waaye di wax <laughs> xam ko de parce que ñooñu mënuñu dem sans Wally Seck loolu Wally moo ko def ci ñoom. ndeysaan lu Wally ci ñoom la waaw. Ah. defuñ ci Wally Wally def ci ñoom. Wally lu Wally def ci ñoom la. mënuñu dem sans moom Wally Wally wax na ko dem ne hmm. ne coow li coow li mën billaay wallaay moo ma ne am na ku yónnee mu ne ko coow li coow li xam na ko. Hmm. yàlla xam na ko day wax ci ci ci biir ci biir wax. xam nga xam nga Wally dafa baax. benn mooy dafa am compréhension. Hmm. dafa mën a comprendre. daa mel ne nga ah. dañ koy tooñ sax mu xam lépp dëgg xam na lépp. ni nga koy gisee noonu xel mi mu yor wala c'est dina yàgg jaaxal waa réew mi. Hmm? Oh, yàlla na ko. gis nañu ne bi instant yii musique sénégalaise bi bu ñu Sénégal ne musique ne Wally Ballago Seck loolu moo wan. te hmm. loo gis ci flambeau bi ñu téye réew mi instant yii ak ci ñu téye musique bi gis na ne day yàgg wala en fait mooy loolu. ne Wally waaye day jàng rek waaye du daanu moom sax wax na ko moo xam li tax mu wax ko ndax bàyyam da daan jàng mais musul daanu <laughs> dañoo wax ba dee dañoo teg ci deram bi loo xam ni <laughs> ëpp naa teg sax ci deru góor mais coon da daan toog rek jublee yàlla kon dem ñu tegaat ko ci wàlli encore non dafa donn te da waaye doon na mu dëgër wàlli dafa donn dafa donn allahu akbar waaye damay dégg seetkat yi bëri naan dafa ànd ak jinne wàllu àndut ak dara nit ku set wecc la dafa seet si ndey seet si baay. Mm-hmm. ku ànd ak yàlla doo daanu. Mm-hmm. moom sax way na ko. Mm-hmm. mbër bu yàlla samp du daanu. te moom li mu doon da koo doon ci waajuram muy papaam. papaam dégg na fi lu ne. dem nañu ba ba di ko tolloo léegi sundur di yàq diggante mais anamu musul daanu. coon bu ko fekk gërëm doo ko yërëm. coon sekk ba musaan di génn bu taxawee sax doo ko yërëm te aka simple réyul. nu mu mel rek lay génne. Mm-hmm. macha allah loolu moo nekk ci doom ji tey. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah kon xam naa fi la ñuy tëj rek ci Waly Ballago Seck le centre du peuple yaakaar naa nga amoon relation ak papaam. tey papaam euh, yàlla weddi euh, tey doom jaa ngi fi Waly Ballago Seck. ki wax Waly Ballago Seck. le centre du peuple tuuti rek kii euh, sa coloré papa la macha allah. di wax rek euh, numéro bàyyi noonu daw képp koo xam ne soxla nga ko rek foo nekk ci Europe rek euh, muy Sénégal foo mën di nekk ci monde bi euh, am na numéro WhatsApp aussi tam mu ngi noonu di ko woowee rek lépp loo xam ne jafe-jafe la incha ko saafara soxna suñu bàyyi la nga tàggoo ak mbokk yi ak ñan ngay remercier incha allah waa Idaly balaa mooy tàggoo damay wax ci ci Wally Seck mm-hmm. kon delloo ko ci Wally bi ah macha allah yow bëgg Wally nag xam nga sama digganteeg moom dama ciy gis lu bëri mais dama koo yàkkamtiwul dem naa kër ndax boobu xat yi métti na ci moom mooy laataa muy toll ci coow bi mu mujjee woon am. Mhm. dem naa kër dem naa kër yaayam mais boobu dafa fekk yaay ji di yaayam di muuru. mais waa ji dama koy ñaan. Mhm. man ngir jëmmi yàlla ak yonent bi parce que man du ma génn di wax. Mhm. mënuma feeñal dara lépp lu may wax rek damay ñaan yàlla mu nekk sama diggante ak moom ak yàlla. waaye duma taxaw ci internet bi comme ni ko nit ñi dafay di wax pour waaye woo man dama koy ñaan mu xool ko ci jëmmi Thione Seck mu may ma occasion bu ma ko gisee parce que bëri na lu ma war a wax yàlla xam na ko na lu ko war a wax tiital naa ko torop nag waaye Seck ah xam na ko dina am bés bu rëy ci réew mi dina am bés bu nit ñi dul foogee ndax papam am na fu mu jaar wax ji moom dama koy wax attentivement mhm. papaam am na fu mu jaar ñu tuumaal ko teg ko di mhm. tuumaal ko ci loo xam ne du jikkoom Thione Seck ku ko xam-xam ko ci doylu ku ko xam-xam ko ci moom bu doon dee sax dafay des ak ngorom Thione Seck xamul ñaan xamul jël alalu jàmbur ndax bu ñu waxee maalu rek wax na lépp jeexal na lépp mhm. kon Wally dina am bés ci réew bi Hmm. bés bu garaaw. mais bés boobu est-ce que mën nga mën nga ko mën nga ko gis en fait wax mu génne a sarax wala naa waali rek borom dëj bi rek. doo ma ko yóbbal. rek. waali rek. parce que xam nga pexe yi dañoo bari Idaly. la waaw xanaa ñu jaaree bu ñu waaw bu ñu. mën waali dama koy xalaat sax di jooy. pexe yi dafa bari. pexe yi dafa bari ngay lalal. diggante bi mu toll nii bari na ñu mu neexut. mais pourquoi loolu parce que ku baax la. mais Sénégal ñoo bëgg ku baax wala mu doon parce que Wally vraiment amul bis am wa amul ku am sikki vraiment nit ku baax war ko def lu bon daal ko man. xam nga xam nga Wally dinaa wax wax joo xam ne mosoo koo dégg fenn Wally ñu bëri dañ koy xeex ndax ñu muy àndal am na ñoo xam ne dañ koy critiquer ndax ñu muy àndal. ñu ci bëri dañ naan Wally ñu muy àndal baaxuñu xam nga lu tax. Mm. xam nga lan moo waral loolu soxor ak iñaan ndax ku sañoon. Mm. da ngay ànd ak Wally Seck ku sañoon da ngay ànd ak Wally Seck mais comme que jotoo ci Wally rek da ngay salté tilimal gi nag fépp la. Mhm. muy ci ñi mu àndal muy ci côté Wally Seck mais man Wally ci boppam ah. man de wax dëgg fa yàlla. ñu bëri di wax au samedi di ñaane oto yi bu yàlla mënul defal am sax moom defal ñëpp. xam nga xam nga Wally. papaam da daan dégg ndeysaan Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm. amiin papaam da daan dégg akanay. akanay daa tontul baayam. Wally Seck dafa tontul baayam. baay bi nay mënul jur doom bi tamit. la nekk ca baay ja moo nekk moom. kon jeex na. ku sa wërsëg nekk ci Wally. Mhm. di nga ko jot. Mhm. mais àddina nank rek. Mhm. nañu bàyyi nit ki mu concentré wu ci liggéeyam ak ay njabootam ak ñi muy te doom ji ndey ja maman Diaby moom itam jàmbaar la. kenn amul lu xoolal kenn mënuñu kaa waxal xam nga lan moo tax ruqam la doom du génn du kenn kooku kenn mënul wax ci moom. Diaby amul dara lu ko waaye mën a waxal ci kaw suuf. amul ruqam la toog Diaby faalewul kenn ku dul Papa Thione. Mhm. gëmul kenn ku dul Thione Seck lijjantiwul kenn ku dul ay njabootam. Mhm. ndax njaboot ji mu am dañ koo doy sëkk du dugg ci lu yoonam nekkul jaaga maandu na fonk na ay doomu jàmbur jaaga nekk na yaay joo xam ne yaay yaay ju raar la mhm. ci yaay yi mhm. xam nga lan moo tax mu nekk yaay ju raar ci yaay yi des dangay am doom te doo ko muñ dangay am doom mu mel na nii mais doo ko faxal mais jaaga dafa yëg ay njabootam mhm. te yëg boobu da koo tàmbalee ci bàyyi doomam yëg da koo tàmbalee ci ba ci ba ci ci ay papaay doomam gungee Wally Seck ku bëgg Wally mu bëgg la ku bañ Wally sa jaaga bëgg na la. ñi bañ Wally sax la jaaga dina bëgg ka ñi bëgg Wally jaaga du génn du tontu kenn mhm. parce que xamu ko du jikkoom doo doo génn ba gis ay mbokku jaaga yi taxawaalu ci internet bi jamais mhm. amul mhm. waaye nag moom Thione Seck yar na ko Mm. am na solo léegi nga tàggoo rek xam naa waxtu waa ngi dem nga tàggoo lan ngay euh, remercier li nga xam ne mooy sa clients yi ak ñi nga xam ne mooy say mbokk ak yëpp lan ngay remercier. waaw yow nag yow Ida yi dama lay dama lay dama lay remercier ndax. non man moom garaaw. yow dama lay dama lay gërëm kër gi la maison amul problème man maa la bëgg. ndax déjà man moom boo bëggee waale rek maa ngi sa ginnaaw ah, yàgg naa laa topp nga nekk nit ku baax nit ku bëgg waale sekk ndax. nit moom of ma ma garaawul. nit nit ki moom li nekk gi ah li nekk ci xolam day feeñ ci kanam gi ah du noonu lañ koy waxee. Mhm. li nekk ci xol bi rek dafay feeñ ci kanam gi. Mhm. Euh, ma lay ñaanal jàmm nag. Mhm. di la ñaanal wér gu wér li di la ñaanal yàlla bàyyi la ci kanamu njaboot gi. te liggéey bi yàlla yàlla defal la ci ndam incha allah. yàlla na la yàlla musal ci say noonu nag. ndax xam naa ni amoo Mhm. ndax taalibe taalibe Serigne Touba man man man ñaanal nga ma <laughs> bi ci topp nag. Mhm. Euh, damay gërëm Serigne Moustapha Sy. ndeysaan sama Serigne macha allah sama wasila. wallaahi Serigne Moustapha bu ma xoolal bu ma mënaatoon am doom doom yëpp Moustapha la ñuy tudd. est ce que ñëpp ay laal. allahu akbar Serigne Moustapha rek. wane na ko ci saal bi ñu duggee ak saal bi mhm. euh, di gërëm nag samay soppe ndax dama am ay soppe nag. nit ñi dañ ma bëgg lool ndax Serigne Cheikh ñi ñi bëgg ma lool te yàlla rekk a tax idaali mm-hmm. ñi nga xam ni dañ may farataal di suivre aw ma seen fay di leen ñaanal jàmm mm-hmm. di ñaan jàmm ci réew mi mm-hmm. di wax ni nag problème réew mi ci ñi nga xam ne dañoo ànd ak Ousmane Sonko waxoon naa fi képp koo xam ne ànd nga ak Ousmane Sonko te bëgg nga Sonko téye réew mi ah Macky wàcc da ngay génnee sa roxu ginaar ségg bu xonq ségg bu xonk ngay génne sarax kooku sarax baax na bu ñu ko defee incha allah ma ne day metti rek waaye ki moom réew mi dina jël réew mi ci kàttanu yàlla mhm. di gërëm ñëpp nag mhm. waaw mhm. Euh, da am secrétaire wala sa bu mat secrétaire macha allah waaw moom ba léegi moom euh, euh, xam nga xam nga kii mënu ma wax ci moom ndax dafa nekk góor goo xam ni sang ma rek la mënut. que ah. allah akbar sang ma rek la mënut. Mm-hmm. ndax moom sama doom yi moom rek la xam njaboot mm-hmm. moom rek la ñu xam ndax seen njaboot gi bu seen papa génnee. Mm-hmm. bi seen papa génnee àddina. sama goro da koo téye ne ko diw ginnaaw yàlla ak yonent bi dénk naa la samay sët. ma deew ak ma dund dénk naa la samay sët te bu ñu mës a génn seen loxo. Mm. parce que xam nga lu tax xale yi seen papa dafa teel a wàññeeku ma nekk ak moom nag di bu ma wér bu subaa ma feebar ndax xam nga rek bagage waaw bu teyee ma wér bu subaa ma feebar boo taxawee nag danga naan dara méttiw ma moom nag mu jël lépp engagé ko moom rek lay gis moom ma téyeen jabar gi ba ñu dëgër kon nag wax ci moom daf may jafe mm-hmm. waaw mm-hmm. am na nag ñu naan sama jëkkër la mm-hmm. ñi xamul ñi nga xam ne mii nañu ma. waaye mhm. nag célibataire bu ñàkk di xoolal bu non célibataire bu ñëw di jooy. gaa day ñëw de ah. baal ah, na ma kii gaa day ñëw de. xam ne Malick mii. Mhm. sama mhm, nit ku ma yàlla dénk mu uufe ma samay doom ba dara dul dara. waaw. macha allah ñi nga xam ne say yi nekk Europe. Euh, tey euh, nga am occasion pour nuyu leen ñi nekk àdduna bi yëpp yaakaar naa baax a parce que namoon nañ la. man kay dinaa képp kuy mhm. maa ngi lay ziar maa ngi sama waay la. jàmm ña wala ma se